dégg ak toppit ci li sëñ Bousso bi wax lépp wax na ci sëriñ bi wax na it soxna ci taxawaay boo xam ne war na koo taxaw di gëm ak boroom këram loola it yàlla na ko soxna yi dégg te jariñoo ko wax na it ci nit ki diggam ak boroomam ak pas-pas boo xam ne am war na ko am diggam ak boroomam ndax sëriñ bi it sëriñ Mor Jaara it wax na ak càllalaam ak lépp waaye nag ëpp ci mbir mi pas-pas ak pas-pas boo xam ne war na ko diggam ak boroomam lu ci bëree bëri loolu ko ko may kon loolu day doon jàngat yu bëri yoo xam ne jotaay yu mel nii bu amatee ñu bañ di fotosoo ko joxe àddi rek waaye nag jàngat ak di bàyyi xel di xool suñu bopp bu baax a baax ci jikko yu rafet yu tedd yooyu ñu doon wax ndax buñ ne nañuy fàtt suñu borom ne nañuy fàttali ndax fàttali day jëriñ ab jullit ngir ñu mën a jëriñoo ca jikko yu tedd yooyu rek maanaam moo koy waral kon ñu ngi sant bu baax a baax bu ko defee xam naa dañuy jox kàddu gi Serigne Moussa Gueye nekk wala réew Serigne bi xam naa bàyyi ko ba Touba bëggoon a feeñal yéeneem xam naa Serigne bi newoon ñu jox ko kàddu gi bu ko defee xam naa kon dañ koy jox kàddu gi rek ci lu tolloog fukki minute rek su ko nopp su noppee rek boo defee ñu wéyal li nga xam ne maanaam moo des ci programme bi. xam naa di wax ne waa daayira bi luñ ci tënk rek bu dee dañuy jël kàddu wala boog luñ ci waxtaane ba jubóo ci bu fekkee am na ko ciy jël kàddu buñ ci waxtaane ba jubóo rek incha allah danañ leen jox kàddu gi